فلما دنونا من سن البدر وانجلى لنا ستر عن الزلام والدماء بها فلما دنونا من سن البدر وانجلى لنا ستر عن الزلام والدماء بها رسول أمير عامد ومحمد نبي سما فوق السماء كين ساميا فلما دنونا من سنة البدر وانجلى لنا ستروان والزال من الوجه ما بيا ألا يمن سمالك رسول عميد عامد ومحمد نبي سما فوق السماء كين ساميا huwa dawatul azma yuzil bi dhillihi yamunu bila manin wa yanfi al maasiya هو المنتى مجدا وفقرا وسودا هو المرتجى يوما يصيب النواسيا الحاج منصور ne wa awwalu man لبى ألست بربكم هو الروح الرحمن كان مناجيا وأولو من لبى ألست بربكم هو الروح الرحمن كان مناجيا ana yi Mansour ne wa qad qaasa fil anwaari iinan musabbian yonent Yàlla Muhammad ana yi Mansour Malick ne wa jaaba buhuuran ashratan mutadaaniya wa kaana nabiyan bi nubuwati aliman yonent Yàlla Muhammad wa adamu bayna almaai wa tiini saawiya wa anta alladi qudisa kulla maabatin wa lam yaku zaaka alwaqta xayraka yaadiya yonent Yàlla Muhammad la daamin ijaabu shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafi al anbiyaai sayidina wa mawlana wa xabibina wa mustafana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci jotaay bi nga xamante ne ñu ngi koy def muy jotaay bu am barke ñu yaakaar ko ci te yëg ni dinañ ci am incha allah ndax wax jooju ñuy wax ni waxtaane wi ñuy waxtaane nit yàlla yi ci la yàlla di wàccee barke ci suñ jëmm yi kon yàlla nañ ko yàlla defal eh, tey nag ñu ngi toog ak Chérif dara Aïdara Tidiane mu fas yeneen ñu waxtaanal lenn ci tariixa bi wala ñenn ci tariixa bi parce que waxtaane gi ngay waxtaane ñeneen ci tarixa bi mooy waxtaane bi ngay waxtaane tarixa bi muy tarixa Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu xam ngeen ni e, gis ngeen photo bi nekk ci suñu wet e, ki féete nii ak man mooy alhaaji Mansour alhaaji Mansour mooy doomu Cheikh Seydi alhaaji Maïs radiyallahu anhu ki nga xam si moo féete ak Chérif mooy alhaaji Abdoul si Sy Dabakh radiyallahu anhu alhaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh e, nekkoon xalif général de Tidiane ñu bari miin nañ ko ci jëfam ñu bari miin nañ ko ci bindam ñu bari miin nañ ko itam nag ci ay kàddoom yaakaar naa génération bi mujj judd sax xam nañ kan mooy alaaji Habib euh, kala alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh waaye jëmm ji dend ak ñun muy alaaji Mansour euh, am na ñu ko xam ñu bëree bëree bari waaye am na itam ñu ko réere ñu bëree bari ndax lu néew la lu tumranke la nga dégg ko ci waxtaan moom ci alaaji Mansour mii nag tey ci la ñu bëgg a jëmale suñu waxtaan Euh, xam naa Chérif ñu bàyyi la nga nuyoo ñu door a waxtaan ci jëmm joot ñuy waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziyaar yéen ñiy déglu ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw euh, di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo jël si wax ji muy suñu mbokkum daara di al ustaaz alxaaji Malick Fall dalee ko ci moom ba ci ki yor programme diine yi di al oustaz Hassan Diouf ba ca kaw di alxaaji Sidi lamin ñas directeur général nuyu waale ci suñu mbokk mi sëriñ Hadi malik euh, Malick ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di balu àq ñëpp ci lii ñu fas yéene wax lu ci jub rek ñu bokk ko sant yàlla lu ci dëng nag ah ñita mata di rek du suñ jubluwaay Euh, jërëjëf euh, kon Chérif Ibrahima Aïdara wax naa léegi nii dañuy waxtaane alhaaji Mansour mm-hmm. radiallahu anhu alhaaji mm-hmm. Mansour tey buñ ko doon waxtaane mën nañoo tàmbali xëy na ci Seyd alhaaji Malick mm-hmm. ak ci way juróom wu jigéen waaye nag mën nañoo tàmbali feneen sax fu gën a sori loolu ndax euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na maam yu bari yoo nga xamante ni tey li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum di wax ni maamam moo tudd rek mën nga ko caa tagg moom yonent bi ndax ay jikko yu rafet yu sell mm-hmm. loolu nag moom moo gaar alaaji Mansour mi ñuy bëgg a waxtaane mm-hmm. tey boo ñu doon waxtaane ci alaaji Mansour ci fan ngay tàmbalee ak ci ñan ngay tàmbalee mm-hmm. jërëjëf xaaji malik euh, bu ñuy waxtaan ci alxaaji Mansour nit booy wax ci moom da ngay tàmbalee ci cosaanam te cosaanam génnul way juróom wu tedd wi Seydal Xaaji Malick ak woy juróomu jigéen di soxna safiyatu ñang waxoon naa la ko ca waxtaanu sëriñ ab Ba ne la Sidi Hadj Mansour mii ñuy fas yéene waxtaane nag dañ koy def ñetti pàcc rek ci lu gàtt bu njëkk bi moo di moom fi mu jaar bi bi muy gane àddina ni gane àddina ak lu jiitu muy gane àddina ak ci wàllu njàngam fi mu jaar ak wàllu taxawaayam gannaaw bu jàngee ba ni génn àddina Seydi Hadj Mansour mooy ñetteeli doomu Seydi Hadj Malick ci góor ñi bu dee jigéen ñi nag ñi ko mag bari na mooy la ma la waxoon ca waxtaan wu njëkk wa ne la soxna safiyatu ñang bi muy ñëw biñ koy dënk Seydi El Hadj tudd loon safiyatu alfi la tuddoon alfi ñang Sidi Hadj moo soppi tur wi ne safiyatu yàlla def nag Sidi Hadj Malick bi soxna si ñëwee ci loxoom am na juróomi doom yu jigéen te amul góor moom soxna safiyatu waa bi mu ñëwee bañ jox ko Sidi Hadj Malick dafa yàgg ci kër gi amul doom bu góor mm-hmm. ndax moo moo moo moo moo jur soxna Asiya malik Asiyatu malik moo jur soxna Fatima Malick moo jur soxna Roqaya Malick moo jur soxna Astu Malick moo jur soxna Nafisatu Malick ñooñu ñëpp kenn la ci alaaji Mansour mag mooy soxna Nafi ñi ci des ñëpp ñoo ko mag mageel googu ñu ko mag nag jiitu ko ci kër Seydi Hadj malik soxna si yàgg ci kër gi am ñeenti bant yu jigéen ñëpp di jigéen te amagul góor ci ci ci ci xërug doomu aadama ak ci bëgg-bëggu doomu aadama mu dem ci góor gi Seydi El malik Malick ne ko si dama bëggoon nga ñaanal ma yàlla ma am fi bant yu góor su ma sañoon daal am fi góor góor gi ne ko dégg naa ko mu demaat ab diir waxaat ko ko góor gi ne ko dégg naa ko mu toogaat ab diir ñetteelu yoon bi bi mu ko ko waxee na góor gi ne ko ah dafa mel ni itteel na la ah sëy day doom du ca bénéfice waaye ndollente la ca sëy ca euh, sëy doom du ca charte waaye bénéfice la ca mooy ndollente la ca mm-hmm. mu ne ko kon daañ ci def itte ci la woo sëñ Babacar Si mm-hmm. radiallahu taala an moom Seydil Hadji maalik mm-hmm. am dog bu mu ko jox ne ko yow ak diw ba ngeen juróom-ñaari nit séddoo leen ko ngeen def ko te yéene ko soxna si sa tànta sa yaay Safiyatu yàlla may ko fi njaboot gu góor mm-hmm. moo tax sëñ Abdou daan wax ni sëñ kër si bàyyi la ci man ndax participer na ci sama juddu noonu la ko defee ci Seydi Hadji Mansour daf leen mag bu baax moom sëriñ Babacar nee na ba dog yeggee soxna si xam ne loo bëgg bëgg bëgg bëgg am na lu la war fekk amoon na ay jur ca jolof jur googa nag muy dem yónnee ñu nemmeekul ko ko mu fekk yor na fa ñetti yëkk yu mag mu ne nañ ko ko dàqal indil ko ko Tiwaawan ñu dàq yëkk ya indi ko Tiwaawan muy ñetti yëkk yu mag bi ñu ko indee waxtu tisbaar ba góor gi jógee jàkka ja dal lu tuuti war a delluwaat ca daara ja pour jàngale ci ci la ko soxna si ne ah balaa ngaa dem daara ja de bëggoon naa nga yegg ci wanag wi xool gan ya fa nekk mag ñi xam nga dañu am sutura xam teggin nu ñuy waxee Seydi xaaj Malick dem ca wanag wa fekk fa ñetti yëkk yu mag mm-hmm. nee na mu ñëw ne ko Safiyatu lii nag ku ko moom mu ne ko ah xeeb naa ko lool waaye maa la ko jox ngir nga ñaan gi ma la santoon ñaan gu ne laaj na weexal maa la ko weexalee xam naa sax du payam waaye maa la ko weexalee ngir li ma la doon ñaan loo yàlla def ci barke mu ne ko inchaa allahu inchaa allahu inchaa allahu yal na ci yàlla def barke nga xam ni kon mag ñi li ñu am dañ ko jënd li ñu am dañ ko kaññe mhm. kaññe ci baatu wolof mooy li nga wax mooy dañ ko jënd mhm. tooguñu rek ne yàcc di seet ñun nag jamono bii ñu toog dañuy accaataan yaakaar na da ngay croiser les bras lépp fekk la fa mm. loo dëkk dëkk ak ku baax boo jéemul baax doo baax jeex na mm-hmm. kon sëñ te xaaj mm. la muy doon doon borom këru soxna si mm. teewul di niirlu na ko ba xool ndax itteel na ko wala itteelu ko soxna si it nekk ku am xel ku ñor ku yàlla may xam ne ñaan gu ne am na lu ca war mu jox ko ñetti yëkku yu mag Seydi Hadji Malick sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ci lañ dem tuuti nag soxna si am alxaaji Mansour mii mille neuf cent mooy doomu Seydi Hadji malik bi njëkk a juddoo Tiwaawan moom alxaaji Mansour hmm. doo buñ la laajoon tey ban doom la Seydi Hadji malik am bu njëkk a juddoo Tiwaawan mooy sey mooy mooy Seydi Hadji Mansour Mm-hmm. moo njëkk a juddoo Tiwaawan ci li Seydi Hadj Malick am mm-hmm. ñi ci des ñëpp juddoo wuñ Tiwaawan bi muy judd Tiwaawan it mm-hmm. at bi mu juddoo at boobu la Seydi Hadj Malick rëdd jumaa Tiwaawan ci la Seydi Hadj Malick rëdd jumaa Tiwaawan 1904 bi bi sëñ Abdu juddoo ah. zawiya bi ak jumaa ji xam nga du benn magante ne ñeenti at. magante ne ñeenti at. 1900 mm-hmm. ci la Seydi Hadji ci la Alaaji Mansour juddu. Mm-hmm. gane àddina. Mm-hmm. ci la Seydi Hadji Malick rëdd jumaa Tiwaawoon. ñu commencé faa julli. loolu rek am na lu muy bijji. am na lu muy bijji junj. la muy junj nag neex naa xam. Seydi Hadji Mansour bi mu ganee àddina way juram Seydi Hadji Malick tuddee ko yonent bi Mouhamadunil Mansour. moom la ko tuddee yàlla may ko it mooy doomu Seydi Hadji Malick bi yaroo ci keppaaru Seydi Hadji génnu fa loolu la ko yàlla defal moom génnul ci keppaaru Seydi Hadji Malick bi mu ganee àddina ba bi baayam di génn àddina 1922 mook Seydi Hadji Malick ñoo dëkk mm-hmm. waxtu bi bi mu matee ndaw ba ni mu génn àddina wax na sëñ Abdou nee na waxtu wu Seydi Hadji Malick di ubbi buntam ci ndiggal Seydi Hadji Mansour lay dal loo ciy déggee mooy ci buntu ba la daan toog di xaar baayam soxla ko loolu ca la nekk ak Seydi Hadji moo ko jàngal ci loxoom Seydi Hadji Malick mm-hmm. moo ko jàngal ci loxoom moo ko dalal alxuraan ba mu am juróom-ñetti at mokkal alquran mu dalal ko xam-xam Seydi Hadji Mansour sàkku na ci moom ñaari yoon sax pour génn jàngi comme ni moromam yi daan def maanaam dem ndar wala dem feneen wala dem feneen mu ne Seydi Hadji Malick ne ko déedéet matu ko toogal li ñëpp jàng dinaa la ko jàngal li ñëpp xam dinaa la ko xamal ba xamal la leneen lu dul loolu yi mhm. Seydi Hadji Malick wax na ko ko mu toog ak Seydi Hadji Malick nag dégg ndigalam mbooleem rasaa'il yi daan jógee bitim réew ak mbooleem rasaa'il yi Seydi Hadj Malick daan bind Seydi Hadj Mansour a ko daan bind bu jógee bitim réew Seydi Hadj Mansour a ko daan liir jàngal ko Seydi Hadj Malick lettre yooyu bokk na ca bu Muhammad Nadifi bi bind duratul xarida wala yaqutatil farida wax nañ ne keroog bi lettre bi ñëwee ci moom Seydi Hadj Malick jox ko ko ne ko liir ko mu ne ko ah papa kii arab yi muy làkk fursa bi muy làkk ak man arab yi muy làkk yi may làkk utee na mu ne ko Mansour liiral rek bu ma la ni liiral loo liir xam ko mm-hmm. Seydi Aj liir leetar ba kooka moo bind duratul xarida wala yaaxutatil farida mm-hmm. mboolem lettre yi daan jóge bitim réew ci naar yi di ñëw ci seydal El Hadji moo ko daan réceptionné tey boo ko doon wax ci jamono pour nit ñi dégg ko mm. danga nga naan mooy Pape Makhtar Kébem Seydi El Hadji Malick ni Pape Makhtar Kébé meloon ci Sëñ Abdou mm. noonu la El Hadj Mansour meloon ci Seydi Hadji Malick mm. comme secrétaire. moo doon secrétaire am. pendant vingt deux ans ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne teq teqalikoowul ak Seydi xaaji malik benn jamono. la ko waral nag mooy booba magam sëñ Babacar si Seydi Hadji Malick ko waxoon sori ma. Mm-hmm. Babacar sori ma. mu ne ko ma dem ndakaaru mu ne ko dafa lëndëm noppeegu ma fa. Mm-hmm. mu ne ko ma dem ndar mu ne ko dafa sori su ma la soxlaa balaa ngay ñëw day yéex. Mm-hmm. mu ne ko ma dem Thiès mu ne ko dafa jege Tiwaawoon ba mu ëpp. mu ne ko ma dem Tëngéej mu ne ko waaw kañ foofu baax na demal Tëngéej. moo taxoon sëñ Babacar si nekk Tëngéej. te dafa moo ko. waaw ma ba mu ko tàggoo Louga mu ngoog mooy li nga wax daf ko ne maga nga fa. muy góor gi maalik sàll mu ne ko maga nga fa te mag dañ koy jox orma mu ne ko tëngéej nag mu ne ko waaw kañ foofu baax na moo taxoon sëñ Babacar si radiyallahu anhu nekk tëngéej comme sëñ Babacar mooy taaw Sidi Ahmed génn na àddina sëñ Babacar si moo fi nekk alaaji Mansour nekk fi bu sëñ Babacar génnee alaaji Mansour génn kon du baax xaaji Mansour nekk secrétaire u Seydal Xaaji Malick ci ndigalal Seydal Xaaji Malick diiru lim nekk ak Seydi Hadji Malick yëpp Maodo di ko jàngal génnul ci kuurukaar ak Maodo moom Maodo ko yar li may nettali nii Alaaji Ahmad dem Sokone moo ko wax man mii di wax nag Sokone laa juddoo Alaaji Ahmad dem nii ma la xamee nii ñu toogee noonu laa ko xamee noonu laa daan toogee moom li may wax làmbatuwuma ko maam la ci man it Alaaji Ahmad dem moo wax ni mu ngi ko wax mu ngi ko nettali na ko soo ko nettali na ko nee maa ngi ko waxee ba alaaji Mansour génnee àddina mm-hmm. nee dafa am bés moom alaaji Mansour mu jógee Sookoon dem Tiwaawan seeti alaaji Mansour di waxtaan ak moom ci wàllu yàlla mm-hmm. nee na ñu waxtaan lu kowe ci niveau bu kowe ci wàllu yàlla mm-hmm. mu ne alaaji Mansour ne ko Ahmad Dem xanaa xamoon ne ban biñ mooñee Seydal Xaaji Malik la ca desoon man lañ ko mooñee mu ne ko maa ngi lay yëgal ne ban bañ mooñee Seydi El Hadji Malick la ca desoon man lañ ci mooñ mu ne ko maag Seydi El Hadji Malick ñoo bokk benn ban buñ ñu mooñee xam nga loolu xam-xam boobu xam ko rek beneen beneen beneen martaba la beneen marxala mm-hmm. la alaaji Ahmad dem ne wax bi kowe ci man mm-hmm. mu ne may seet lu ko confirmer Alaaji Ahmad dem soo koon ma mu ne may seet lu ko confirmer te confirmation bi mënuma ko am lu dul Alaaji Mansour génn àddina ba xam ba ma xam nag lim door a wax mhm. booba la ci Alaaji Ahmad dem soo koon jublu moo di Cheikh Sidi Ahmad yi moo wax ni kenn ku nekk mhm. ban biñ la mooñee boo génnee àddina ci ban boobu lañ lay delloowaat Seydina Cheikh moo wax loolu jëlee ko ci waxu yonent bi mhm. mu ne nag kon fokk man Ahmad dem Sokone ma ñaan yàlla mujj ko fi ndax wax bii mën a confirmer mu ne ba bi góor gi génnee àddina fekkewul rob bi moom alaaji Ahmad dem mm-hmm. mu ne waaye bi ma ñëwee Tiwaawan laajte fan lañ denc ci alaaji Mansour ñu ne ñu ngi ko toftal ci gannaaw baayam Seydi Aji Maalik mu ne kon wax ja dëgg la mu ne keroog laa ko nettali mm-hmm. ca dëj bu tooy ba fa la ko alaaji Mansour nettali kon dañuy dégg ci wax ji ne alaaji Mansour ci biir xabru Seydi Aji Maalik lañ ko denc ñu ngi ko denc ci biir xabru Seydi Hadji Malick mook Seydi Hadji Malick ñoo kole. moo tax waykat bi di wax ni Mansour la ñu la ñu uufal baayam. kañ moo tax mu loolu la waykat yi di wax ne Mansour la ñu uufal baayam mu ngi ci gannaaw Seydi Hadji Malick net. Mm-hmm. kon la waxoon ne ban biñ mooñee Maodo la ca desoon moom lañ ko mooñee loolu confirmé wu na. moog Seydi Hadji Malick fañ tëdd tey loxo sax doxul seen diggante boo fa dugalee loxo du fa xaj. kon wax booba confirmé wu na waaye alaaji Mansour ndax euh, euh, nga baal ma Chérif ndax loolu ci sakk càkkutéefu ko euh, alaaji Mansour la bi muy dund hmm. kani nañ ma denc ci sama wetu bàyyi wala jamono ñëw rek yàlla bëgg dëggal wax jooju alaaji Mansour ki waaw kañ jamono ñëw yàlla dëggal ko ay sàkku ko hmm. bi mu génnee àddina am na feneen fu ñu xalaatoon pour pour denc ko fa sëñ ab doo ko wax hmm. biñ xalaatee foofa mu ne am mag ñu ne tey ñu ko def ci gannaaw Maodo mu ne ñe ko ñe ko ña cee d'accord ba mu am sëñ Hadi Touré ca la bokk mu ne bi ñuy dégas pour denc ko muy golleeku xam nga golleeku ci wolof. mooy suuf si di màbb suuf si di màbb di wàcc. Mm-hmm. mag ñi mu mënuñu fexe ba am pexe muñ ko muñ ko gasee ba suuf si bañ a golleeku. Mm-hmm. pour bu gollee ko kon Seydi Hadj day feeñ. te du teggin. Mm-hmm. neena na sëñ Haadi ne leen kaay leen xam nga sëñ Haadi Seydi Aj Maalik nga ko jàngal xam-xamu astrono astronomie moo ko ko jàngal mm-hmm. muy elmu nujum mm-hmm. eh, yal nañu yàlla fayal mag ñi Haj Maalik sëñ Haadi indi ndox ñu jox ko ko mu di ko wicc di ko wicc ndànk di ko wicc ndànk di gas di wicc di gas di wicc bu bu wiccee ñu gas bu wiccee ba mu tooy ñu gas bu wiccee ba mu tooy ñu gas ba mu am fuñ ko denc ci foofu noonu lañ dencee alaaji Mansour ci gannaaw seydal Alxaaji Malick mhm. diiru nag lim nekk ak seydal Alxaaji Malick Maodo jàngalal ko boppam alquran jàngalal ko boppam xam-xam jàngalal ko bopp funun yëpp tarbiye ko nag boole ci moom lañ waxit ne mooy kenn nit koo xam ne moom la Seyd Alxaaji Malick defal ijaaza tarbiya xam nga nit ñi dañ foog ne ijaaza mu ngi yem ci tariqa beeg maye wird mhm. ijaaza ay martaba yi ngay am sax dañ la ciy defal ijaaza mhm. alquran dañ ciy def ijaaza mhm. fiq dañ ciy def ijaaza mhm. yeneen ak yeneen waaye martaba ijaaza euh, tarbiya ijaaza tarbiya wax nañ ne moom sël Seyd Alxaaji Mansour moom la ko Seydi Xaaj Malick bindal gannaaw bi mu ko tarbiya ba gërëm ko mu nekk noonu ci ron Seydi baayam Seyd Alxaaji Malick mën nañ wax yàgg na mën nañ wax yàggul ndax 1900 1922 Seydi Hadj Malick génn àddina kon 22 ans la def ak baayam mm-hmm. Seydi Hadj Malick yàgg na yàggut. waaw ah, ndax itam 22 euh, ans moom xale bu ci bu ci kii da ngay da ngay mujj de xàmmee nag. mën nga ci jàng sax ba mu mokkal ci alquran. waaw déggoo ma ne la à l'âge de 8 ans. Mm-hmm. juróom-ñetti at la mokkal alquran. bi muy am ñaar fukkeet ak benn jëm ñaar fukkeet ak ñaar Maodo jàngal na ko xam-xam mm-hmm. ba jàngal ko xam-xamu bii nit ñi di tiitaroo tey. li ci Alaaji Mansour xamoon kenn xamu ko ci. xam naa fànn googu moom dinañ ci ñëw parce que ñun am nañ ci yuñ ci jot a gëstu di ko laaj ay nit ñu ñu koy wax. Mhm. buñ ci accès di nga ñu ci duggal. su ko defee nag doy loo wutoon it ne Maodo ko jur. Alaaji Mbay mi daan jottalil góor gi Alaaji Mbay mi daan jottalil Seyda Sey Sëñ Abdu. Mhm. Alaaji Mansour a ko yar. Seydi Aji moo ko yëkkati ci teg ko ci loxoom Alaaji Mbay sàmba jëbëre sàmba benn bii benn bii mm. sàmba jëbëre sàmba mm. alaaji Mansour Mbay mii mm-hmm. bu RTS ñii alaaji Mansour leen yar ci loxoom alaaji Mbay nag Seydi Haaji Malick moo ko yëkkati teg ko ci loxol alaaji Mansour mm-hmm. mooy taalibe bu njëkk alaaji Seydi Haaji Malick Seydi Haaji Malick mm-hmm. sa turandoo teg ko ci loxoom alaaji Mansour ne ko ñii dënk naa la ko ba àllaaxira alaaji mbay ca la bokk góor googu tamit ku xamoon Seydi Hadji Mansour la ndax moo ko yar moo ko tarbiya moo ko Seydi Jamil Seydi Jamil nag moo doon seen mag bi góor gi génnee àddina Seydi cent vingt 1922 ci la alaaji Mansour commencé nag di déplacé wu nekkoon na ab diir bu yàgg jagsaaw jagsaaw nag fa la defee mbir yu garaaw yi ngay dégg ci moom yëpp fa la ko defee. waaw euh, boobu un kilomètre de jagsaaw boo ñëwee ci dëkk bi. Mhm. pousse un kilomètre fa la dëkkoon néeg ba mu fa tabaxoon amul toiture. Mhm. bu daan taw ci kawam buy naaj ci kawam. Mhm. sondel yi mu daan taal dafa mujj nekk ay jal jalu sondel alaaji mbay góor gi ji mbay nee na boo ko mosaan jox sondel bu la nee jëndali ma sondel moom heure ni ngay ni ngay soxlaa montre xool ci heure moom boo ko joxee sondel bi nga jënd bu ko jàppee rek xam heure bi <laughs> ci mayam la woon doomu raam dama jëndal ma sondel mhm. que sondel yooyu la daan taal mhm. boo ko joxee mu ne yooyee eh, mënta dem guddi gi deux heures du matin lay yem wala une heure bu dem ba fajar laa wax sondeel bi bu koy téyee rek xam ñaata heure la xam ñaata tàkk-tàkk lay diire fa mu nekkoon dafa mujj def jal ni ngay ni nga demee ci daara ji ñuy taal matt ba mu nekk jal moom noonu la amee woon jali sondel hmm. Seydi Jamil nettali na ne boo mosaan nekk ci dëkk bi Alaaji man Mansoor nekk ca néegam booba hmm. mu ne da dégg ni dënn bi di riiree ci turi yàlla fa la daan waxee xasidaam yooyu hmm. fa la bindee bindam yu bari ci la daan waxee ni yéen ñi bëgg yàlla mhm. jege leen yàlla mhm. fa la daan yore it mhm. ñaari kurus bii ci loxo ndeyjoor bii ci loxo càmmoñ te yépp kurus junni la te bu ci nekk lim ciy wax bokkul ak li muy wax ci moromam ñaari kurus yëpp di daawandoor. voilà euh, Chérif Ibrahima dara ñu bàyyi la nga dallu tuuti. <laughs> parce que dafa mel ni ñu ngi bëgg a xaajal ci waxtaan wi. te da ngaa wax ba tudd euh, xasida yi Alhaji Mansour yi. Mm-hmm. te man léegi sax maa ngi yër léegi ay xasidaam mm-hmm. mais mu yéem ma lool. Mhm. ndax dinaay dajeeg moom mais am na yu ma dajeegul woon am na yu ma ci jot a gis yoo xam si mosuma leen a gis. Mhm. mais xasida yu yéem yéeme la. Mhm. ci baxaru yu yéeme yéeme. am na yoo nga xamante ni tabaarakallaahu ni mu ko ni mu ko riimee. Euh, yi ay miimi ya la yi ay laami ya yi ay nuuni ya la yi ay xaafiya la te xam nga euh, xarfu xaaf hmm. bokk na ci li nga xamante lu gën a jafe la maanaam mii ya ak laami ya la gaañi la gaañi a yëpp hmm. waaye moom ci baxru yi gën a jafe ci lay ci lay waye hmm. baxru yooyu am na ci yoo xam si sayid mi suñu mbokk bi dana ñu ci yëkkatal xam naa ñu bàyyi la da nga yëkkatalu ñëw itam ci bayti El Hadji Mansour si radiyallahu anhu Hadji Mansour ne fa waa kabida min ubbi man la muraaqihi sa turandoo wa barustiyaaqi lil ayaami yahulu xoola kook bàyyam moo ko wax muy Seex Siraaji Malik moo ko wax turandoom xoola imaam Sërif nee na saan ñu ngi ko tuddee yoon ci Yàlla Muhammad te muy Muhammadul Mansour waaye xoolal saan sa turandoo Seex Siraaji Malik nee na turandoom mu yoon ci Yàlla Muhammad فواك بدا من أب من لم ألاقه وبر اشتياق للأيام يهول كما سيدنا محمد رسول الله لبر الأواقر فمن رام نيلو ينتبه يكل ولا يساء إليه وصولا njol ma keelin ngeen mam Mansour Malick nee na yaa rabbana alaaji Mansour ne na yaa rabbana yaa rabbana yaa ayu yaa qayuumu muminu yaa salaamu yaa karimo alaaji Mansour Malick ne salli ala badrin duja xayrul wara man huwa xayrul man awwa amara yu nan ba ki mooy anil aqiqati nabi muhammadi yonte ala muhammad salli ali rabbana ya samade bàyyi sëriñ bay si Mansour ne wa ali wa sabi lujumi uli tuqa maadil ulumi yonent Yàlla Muhammad rabbi salaatan yantawil jalaanu min nuuri wa yasbatul arfaano yonen ba alaaj Mansour Malick ne bia alal muslimil mukallami bi salli ali rabbana wa sallimi barakallahu jërëjëf Seyid kon mbokk yi ñu fàttaliwaat leen rek ni ñi ngi waxtaane alxaaji Mansour Sy radiyallahu anhu di kenn ci njabootu Cheikh Seydil Hadji malik si xam nga moom mooy euh, euh, deuxième xalif bu Cheikh Seydil Hadji Malick donte ni fan yem fa toog bariwul xam naa loolu sax danga ci ñëw Chérif incha allah ginnaaw ji mu wuy ji boroomam euh, Seydil Hadji Abdoul Aziz si toog waaye rek ñu fàttalee ni ñi ngi waxtaan ci dundam ak jaar-jaaram ci jëmm jooju nga xamante ni ku mat a xam la ku mat a ràññee la waaye ku mat a jàngat la ak dundam ndax ñun ndaw ñi ak ñenn ci mag ñi sax mën ci moom ndax am na ñoo nga xam si xeñtu mbaax rek moom moo leen yitteel xeñtu itam ku baax rek moom moo leen yitteel mm-hmm. kon Chérif Ibrahima Aïdara yaa ngi doon wax bay tudd ci wàllu ñi mu doon jaamoo yàlla mm-hmm. xam naa ab laaj la sax bu ma la doon waaj laaj mm-hmm. waaye dañ koy lonk foofu rek te mooy ni muy jaamoo yàlla wax nga ni sax parce que man barki démb rek gëstu naa ba àgg Tiwaawan may laaj ay mag ñu ni ma bokk na ci ñi mu daan jaamoo yàlla mooy li nga wax léegi mooy ñaari kurusam yi ñaari kurus yi Alaaji Mansour yi moom siiwoon na euh, tur yàlla da ko daan liggéey bu baax a baax a baax hmm. mu mel ni ku daan wéet ak boppam la di jaamu boromam lu baax a baax te hmm. foofu nga doon euh, yëkkati hmm. dañ lay bàyyi nga soppi rek ci Alaaji Mansour ak ni mu doon jaamoo yàlla waaw gis nga nit ñi loolu li ma li tax ma indi ko sax nit ñi ñi ci ëpp dañuy doyloo diwa ma jur te diwa ma jur kese doyut bu diw jore juree da ngay fexe ba nekk diw sinon rakkal ngay doon te juddu ci xeet nag nekk ràkkal wa musiba la bu la diw jot juree da ngay fexe ba nekk diw moo gën nekk rakkal wala fu ndakaaru nag moom booy wax ak ñoom day metti rakkal mooy boo pressé diwlin diwlinu gerte boo ko pressé ba am diwlin ja lay des nga xam ne mbaam ya lañ koy jox ak xar ya loolaay rakkal nekk rakkal nag nekk diwoo ko gën ndax diw la. ndax diw dafa cher te rakkal cherul moo tax bu la diw jore juree mm. da ngay fexe ba nekk diw moo gën rek doyloo diwoo ma jur. Mm-hmm. moom nag doyloowul ne Seydi Hadji Malick ma jur. Mm-hmm. xool nga façon tarbiya bi ma la wax. Mm-hmm. tabax néeg néeg boo xam ne amul toiture nga dëkk ca. bàyyi sa kër bàyyi. taalibe yi lay jox hadiya ku la jox hadiya nga delloo ko ko. nekk ca àll ba ca jagsaaw ca booba jagsaaw di jagsaaw. mu ñëw ba fi nit ñi dëkk mu dem ki un kilomètre après nekk fa. sondeel la daan taal lam daan lekk ñeme woo ko lekk daqaar laaxu daqaar bu amul suukar moom la daan lekk. léeg-léeg reen yiñ ko daan defee daan na ci boole juróom-ñaari reen yoo xam ne moom lañuy ñuy composé def ko muy safaay gi mm-hmm. ndax yooyu reen yooyu day faj. Alxaaji Mansour bu daan jaamu yàlla am na genn góor gu ma nettali ne mos na koy bës mook sëñ Habib góor googu daan na bës sëñ Habib mu ne mos na koy bës ni mu tëdd nii mu ne mu jékki-jékki gis benn tànk yaakaar ne tànku Alaaji Mansuur la nee mu téye tànk bi di bës ba yàgg gisatu tànk mu ne Alaaji Mansuur ne ko eh, bàyyil tànk boo gis rek bës ko bàyyi tànk boo gis rek bës ko fii ñëpp fi ne. góor gi alaaji mbay nee na foofa ca jak saaw góor gi alaaji mbay moo mooy ki baan jottalil lu jiitu Jóob Njaay góor gi alaaji mbay nee na foofu la ko alaaji Mansour joxe woon benn dog ci salaatul faatihi dog ba yeggul téeméer góor gi alaaji mbay wax ne mu ne dog ba yeggul téeméer mhm. mu ne Seydi Aji Mansour ne ko alaaji mbay daan dama tuuti demal na li nga def dog bi mu ne góor gàllaa ji mbay ne ma yegg dem yegg suuf di def dog bi ne na maa ngi sëgg concentré wu jublu xibla mhm. ne na jékki-jékki am benn jëmm ju taxaw sol jàllaabe sol kurus ci baat bi mhm. jël baaraamam teg ko ci sama jë puus mu ne ma sëgg nee na mu puus ma ba ma siggi mhm. lonki kurusam ne ma hal taarifu nii nga xam nga ma nee na ma yëngal sama bopp mu ne ko ana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi alaaji mbay nee na góor gi alaaji mbay nee na alaaji mansour jaksaaw la ma njëkk a wonee yonent bi eh, seydi xaaji maali eh, cheikh sidi ahmada tidiane yi yàqazatan laa manaama te nee na dog ba mu ma joxoon ci salaatul faatihi matut téeméer kon gis nga mag ñi ñun nag dañ fiy nekk dog bu nekk daa ñu ko laal téeméeri junni da nga gis ku ko sikkar ci bés bi nelaw ba biddanti waaw sikkar ba sa baaraam yi toj moom nag seydi xaaji maalik moo ko jàngaloon xeetu turu yàlla yëpp moo tax mu amoon ci loo xam ne kenn amu ko ci daf ko jàngaloon xeeti tur yàlla yi jàngal ko xeetu talsam yi jàngal ko xeetu diiwaan yëpp mm-hmm. ba daan na wax ni moom Alaaji Mansour daan na wax ni yóbbu nit ci yàlla moo ma gën a yomb tibb ci suuf si jox ma mm-hmm. jàpp ci loxol nit yóbbu ko ci yàlla mu ne moo ma gën a yomb tibb ci suuf jox la ndax xaal bu mu ma neexee ma yóbbu la ci yàlla fu mu ma neexee ak nu mu ma neexee loolu ibaadaat moo ko ko may wax nañ ne nekk na fa bés di jaamu yàlla bi am góor góor gi xam naa ko waaye duma tudd turam góor gu ko fekk ci néeg bi di ko tooñ di ko kale boobu muy góor gaa ngi ci xaal nag mu di ko kale ne ko Mansour yaa ngi fii rek di lekk pom mu ne ko sa tànku càmmoñ bi bu mu fekk si bu ndeyjoor bi buy fekk si bu ndeyjoor bi loo am ci yàlla dinaa ko nangu xàmmee woo ku tal lekk pom ak ku la talul lekk pom góor gi ne rëtt taxaw juróomi minit sëñ Haj Mansour door ko wax yegg si mm-hmm. mu yegg si mu ne góor gi ne ko dama doon kaf rek mu ne ko yàlla xamut kaf te xaal bi mu ma fekk du xaalu kaf Haj suur ci àll yooyu la nekkee jak saw mag ñu bari fa mag ñu bari fa la leen tarbiya mooy ñi ma la wax nii Seydi Jamil fa la nekkoon ak moom mhm. góor gi Alaaji Mbay fa la nekkoon ak moom mhm. góor googu jóg fa la nekkoon ak moom mag ñu bari fa la leen Alaaji Mansour tarbiya ci yàlla foofa ca Jaksaaw bi mu fa jógee nag bi mu amee vingt quatre ñaar fukki ak ñeent mhm. ku daan liggéey la ci ñaqam këram gi ci gël tàppe bii ci gël tàppe fii sëriñ Mbay Mansour dëkk tey te Chérif Mouhamadoul Habib dëkkoon fa. kër googu El Hadj Mansour bi mu koy jënd ci xaalisi boppam vingt quatre ans la am. vingt quatre boobu ci la toll. ak booba ni xaalis jafe. Ah, ni xaalis jafe ca booba jamono. te du àddiya moo ko liggéey ba jënd kër gi. ci la jënd ba ca cees ñaar yooyu la jënd ndoor mu ngi ko jënd à l'âge de vingt quatre ans loo ciy déggee. Mm-hmm. waxambaane wu ne yàcc façon yéene liggéey am na koy lor. am na koy lor na koy lor. Mhm. loo yor yor sa kurus defal dara boole ci waaye kurusu kese mag ñi sax mosuñ ko nangu. da ngay yor kurus gi boole kook leneen. bu ko defee am sa ngor am sa diine. Mhm. moom nag loolu ku ko teel a gëm la ku ci teel a yëngu la moo tax daawul dépendre ci kenn. Mhm. ñaqu boppam rek la daan dépendre yàlla ubbi woon ko nag ba lu mu ci bëggoon rek mu yomb ko gis nga tey kër googu bokk na ci kër yi gën a placé ci Dakar. lu ko ko may. liggéey ak ñaqam moom Seydi Hadji Mansour noonu la daan jaabantee nag diggante Tiwaawan Ndakaaru Tiwaawan Ndakaaru ci dund Seydi Hadji ba léeg-léeg Maodo yónni ko dakaar am na mag mu mos ñëw di am lu muy sàkku mm-hmm. ci Seydi Hadji Malick Maodo ne ko demal ci Mansour mu bindal la ko mm-hmm. bi mu ko ko waxee mu ne ko ah xeebuma ko de waaye at yaa néew lool mm-hmm. te li may sàkku réy lool mu ne ko ah, yàlla dogal na de fii luñ fiy bind ñemewu ma ko jaarale fudul ci man Mansour ndax yonent bee ma ko wax Maodo ay wax de mm-hmm. ne ko jëmm ja tuuti na waaye ko bi miin la mm-hmm. wax bi mm-hmm. mu ne ko jëmm ja tuuti na waaye at ya néew na waaye ko yonent bi miin la fii daal luñ fiy bind lu ne moo koy bind ci loxoom ijaazaat yi moo ko daan bind rasaa'il yi moo ko daan bind lettres yi mooy bind ijaaza yi mooy bind tontu lettres yi moom la lépp moom la ko Seydi Hadj Malick wakiiloon ci dundu Seydi Hadj Malick wax nga ba tudd mm, këram yi liggéey moo ko may dëgg la am na solo ki bi muy am ñaar fukki at ak ñeent loolu himma dëgg la yitte la euh, yitte nit nag moom mën naa yóbbu nit fu ne mm-hmm. himmatul insaan xayratun ala jamili akwaan mm-hmm. waaye xam nga am fatxu itam ci la bokk te yaakaar naa ni fatxu boobu jaamu yàlla moo koy maye fat mhm. fatxu nag borom baati na koy am mhm. xam naa baatin lu jafee waxtaane la mhm. ndax lu biire la ni mu tudd rek la tudd moo ko sirru ñoo yem sekkare ni mu tudd rek la tudd moo tax yonent bi di wax ni man katama sirrahu balaga muraadahu képp ku nëbbuy sekkareem rek yeggale yéeneem waaye xam naa ku daan jaamu boroomam la waaye ku amoon fatxu la fatxu Seydil Haaji Mansour waaw mooy li ma la junj noonu ma la sax fatxu waaye ubbi nit sax dafa gaaw daf ko yomboon xam nga nit mën naa am fatxu te du mën a ubbi kenn waaye ubbeeku di ubbee mu gën a jafe ci wàllu yàlla te yàlla daf ko ko mayoon mu gaaw ci nag bu ko neexee benn fan mën na la ci ubbi kay facha nu mu ko neexee mu ngi dépendre ci yow mi ñëw ban comportement nga am bi ngay ñëw ndax moom booy ñëw dafa koy xam ban comportement nga am yàlla def mu ubbeeku woon nag nekk géej am fatxu lépp yomb ko waaye li ko lépp di yomb mosu ko wane ci kanamu magam yi mosu ko wane ci kanamu sëñ Babacar Si li tax sax ñu tuddee ko inspecteuru tariqa bi mm. mooy génn yu bari mu daan génn di nemmeeku yu muqaddam yi di nemmeeku muqaddam yi ak mbokku taalibe yi fu ne alaaji Mansour dafa daan dem moo tax ñu tuddee woon ko inspecteur u bi waaye loolu ci zahir la waaye ci baatin nag sëñ Babacar si moo wax ci gémmiñam ne alaaji Mansour inspecteur la ci tariqa bi kum dog nga dog kum jokk nga jokk loolu mu ngi génnee ci làmmeñu sëriñ Babacar si te kooku du waxantu euh, yàlla dogal nag alaaji Mansour euh, bi sëy bi Cheikh Al di dund léppam Cheikh Al Khalifa la woon. Mhm. lépp sëñ mosta génn njigalal sëriñ Babacar si. Mhm. lu jafe dégg la. Mhm. te dina ñëw ci bu ñuy wax ak bu ñuy wax ci sëñ Habib. ba yàlla dogal na bés alxaaji Mansour am ku mu am lanteel. bu metti sax. dama koy junj noonu rek. ba lu ne xajoon ca. kilifa ga ma am lanteel nag ñëw seet si Seydi El Hadji Malick. Mm-hmm. Eh, astafurlah seet si Serigne Babacar si. Mm-hmm. pour waxtaan ak moom mu ne ko ah booyee boo gaaw de Mansour a nga ca Ndakaaru biig la fi jógee dem. booye boo gaaw seet ko de ndax inspecteur la ci tarixa bi kum dog nga dog kum jokk nga jokk gaawal balaa yooyu benn di ci xew mm-hmm. ci la kilifa gi ñëw fekk ko fii ci gël tàppe waxtaan ak moom ba gindee ko wanteeg moom lañ man soo ne ko am nga sens bu la bër setaatoon te ñëwoo rek loo am ci yàlla ma nangu ko waxuma la sax tariqa bi kon ci wàllu moo lay loolu ku amul benn ubbeeku ci yàlla mënuloo ko mais euh, boo ñuy nettali doomi Seydil Hadji Malick yi mhm. radiyallahu tey ñu ngi waxtaan ci alhaaji Mansour mhm. mais melokaan wi ak nit kii nga ñuy jox ni mu ni mu doon dundee euh, kon way juróom Seydil xaaji Malick si moom moom ci ban dimension lañ koy mën a teg parce que ku ku maanaam garab gu meññi meññeef mu mel nii moom garab gi mooy kan kañ wax bi moo tax dégg naa sëñ Cheikh dina koy nettali al maktum sëñ Babacar Sy ne moo ko waxoon sëñ Cheikh Al Hadj Abdou Aziz daan na ko nettali moom it daan na wax ne mag ñi buñ mosaan ñëw di di di tagg Seydi El Hadji Malick da teel na bàyyi leen ba ma màggale man sama meññeentum bàyyi la sama mbott yii bu ñu màggee ci ngeen di xam man lan la mm-hmm. waaye mënu leen koo xam teel na kon nag bi sëñ Babacar si màggee ba doon lim doon xam nañ kuy Maodo mm-hmm. bi El Hadji Mansour màggee ba doon li muy doon xam nañ kuy Maodo sëñ Abdou noonu sëñ Abib noonu ba ñuy fi nekk noonu ndax ñëpp njobootu Maodo lañ waaw kon Seydi Hadji malik beneen dimension la gis nga euh, ci gàttal booy wax Seydi El malik Malick naan kenn xamu ko na Yaxya li ca caaro yi mos na ma nettali ci gémmiñam dama yee eh, baaba Seydi Hadji Malick mu ne ma am na chaise yu wilaayaam buy flotté ci jaww ji mm-hmm. mu ne kenn toogu ci ba fi may waxee ak ci lii Cerno Yaxya mu ngi ma ko wax mille neuf cent quatre mille neuf cent quatre vingt am na seize bu mu bu seize ci seize villages yi yoo xam si ba tey kenn toogu ca. mille neuf cent quatre-vingt-quinze la ma Cerno Yaxya li wax lii ci néegi baraagam ba ca Caaroy mm-hmm. mu ne ma baaba baaba rek la ma daan wax baaba Seydi Hadj Malick neexul a jot de mu ne am na seize wilayaam buy folote ci jaww ji ba fii may wax ak yow kenn toogu ci lu ja lu naqaree dégg la lu naqaree dégg la mu ne ma baaba ba fii may wax ak yow kenn toogu ci te lii may lay wax 1995 la ma ko Cerno Yaxya wax Seydi Hadji Mansour donn baayam Seydi El Hadji ci ñaari fànn donn ko ci sharia bi donn ko ci xaqiqa bi sëñ Babacar Si di dund di xalifa. te yaakaar naa ñu amoon relation la parce que yaa ngi may tudd léegi ci biir waxtaanee ni mhm. Seydi Jamil ci Alaaji Mansour la nekkoon. Mhm. li ma lay tegtale nii kañ sëñ Babacar si Seydi Jamil Alaaji Mansour la ko joxoon Serigne Cheikh Tidiane si. Mhm. mu jox ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. Serigne Mansour mi mu jox ko turandoom sëñ Abdou mu yaral ko boppam al nii la sëñ Babacar séddale woon kon relation yi kenn mënu ko dindi. xam nga dañuy dégg ci Serigne Cheikh mas na mu bindoon ca ba mu gënee nekk tout tànk la ko bindoon mhm. nee na xasida yi sax demoon na ba fàtte leen ba ñu réer ko mhm. nee na jëmmi bis bi mhm. gi la ak euh, bu Alaaji ak yu Habib yi waaw li moo mooy baatu inspecteur bi rek inspecteur day inspecté mm-hmm. looloy baat bi lim nekkoon xalifa nag loolu dañ ciy taxaw tuuti rek ndax nit dana doon nit nit ki du dund loolu la waaw loolu la ñuy wax xilaafatul haaroniya ci tariqa bi mm-hmm. Seydi Hadji Malick doomam yëpp xalifaam lañ waaye xalifatullahi lañ waaye xalifatu rasul lañ waaye xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane lañ mm-hmm. te lii may wax du ci bakkan laa ko teg Cheikh Seydi Alhaaji Malick moo bind lettre Cheikh Sukayri ne ko dama bëggoon nga defal ma xalwa laajal ma yonent bi ndax bu ma fi jógee samay doom danañ ma doon ndax néew na ko fi jóg ay doomam doon ko nekk xalifaam néew na bi amoon na ko ndax bi mu fi jógee sayyidatuna Fatima mooy xalifa <laughs> loolu ñu bari xamuñ ko de ah Seydina Abubakar mooy xalifa ci zahir waaye boobu maqamatul uzma mm-hmm. mu yen bu mag bi nekkul xutbul fardul jaamia mm-hmm. Fatima ko yenu woon pendant six mois mm-hmm. Seydatuna Fatima moo ko yore pendant six mois di xutbul fardul jaamia mm-hmm. moo tax Seydina Aboubacar mosul def lum diisoowul ak moom Seydina Aboubacar mosul def lum duggul diisoo ak Seydatuna Fatima ba mu jox ko ci ndigal mu door a génn wax wala mu door a génn def parce que xam na ne boobu Fatima moo yenu yen bi ndax amul benn yonent bu mos a nekk yonent nekk xutbu si waa Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa moom rek moo mos a nekk yónnant incarné waale nekkaale xutbul fardul jaamia bu dul moom yónnant bu mu mën a doon da ngay nekk yónnant xutbaan yeegi keneen a koy yor ci tënk rek damay tënk yont yàlla Moussa ba mu nekkee xutb ba nekkee yónnant xutbaan yeegi ku ko yoroon mm-hmm. waliyu qadir moo tax mu gàddu taalibeem ba yuusa mm-hmm. pour ñu gisi waliyu qadir mm-hmm. foofu dama koy tënk foofu laa ci yem ndax taxu ñoo jóg yont yàlla Suleymaan ba mu nekkee yónnant kan moo nekkoon xutbu ba mm-hmm. ka yàlla junj ci alquran mm-hmm. ka waxoon ne mm-hmm. ana aatika bihi qabla an yartada tarfuka kooka moo doon xutbu ca jamonoom yonent bi rek sallallahu alayhi moo nekk yonent nekkaale xutbu loolu day wane cëru yonent bi bi muy génn àddina nag sayyidatuna Fatima moo yenu yen bi nekk xutbu waaye kii di xalifa Seydatuna Fatima six mois après mu génn àddina Seydina Aboubacar nekk xalifa loolu nag lañ doon doon nanti ba ci Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi mm-hmm. moom nag mu nekk xalifatul xulafaa yi waaye nag mu gi nag mu am ca leneen lu kenn amul mooy nekk nag moom Seydina Cheikh moom itam am beneen ba bu ñuy wax alxatmiya wal katmiya ci biir xutbaaniya gi mm-hmm. moo tax moom damay ñëw di wàcc si rek moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi Euh, Aliou Harazim Barada moo doon xalifaam waaye loolu la ñuy wax xalifatul Haaruniya mm-hmm. dafa doon Seydina Cheikh fekk Seydina Cheikh a ngi dund. Mm-hmm. mu génn àddina bàyyi fi Seydina Cheikh loolu ñu ngi ko jëlee ci yoon yonent yàlla Moussa ak Haaruna yonent yàlla Moussa yonent la woon Haaruna di yonent ñoom ñaar ñu ànd yoon yonent yàlla Haaruna doon na yoon yonent yàlla Moussa te moo ko njëkk faatu. Mm-hmm. moo tax ñu tuddee ko xilaafatul Haaruniya loola tamit moo wàcc. ba ci Cheikh Alhaaji Omar al Fouti mm-hmm. ñëw nag ba ci Seydi Haaji Malick Maodo nag jaamu yàllam ak cëram mm-hmm. li ma lay li nga doon laaj mm-hmm. cëru Maodo tax na Maodo incarné loo xam ne mën naa ne tarixa bi kenn amu ko ci parce que ñu ci bari Seydi Cheikh Ahmada Tidiane bi muy génn àddina comme désigné woon dafa noon sama xalifa sama ginnaaw Cheikh Mohamed al Ghali la ba am ñu koy weddi Seydina Cheikh génn àddina fekk fa sax Cheikh Mouhamadou Al Ghali ndax da fekk mu mu mu mu mu ay déedéet mu ayee ji woon ci beneen soxnaam. Uh-huh. la daloon Seydina Aboubacar ak yonent bi. Uh-huh. moo dal Cheikh Mouhamadou Al Ghali ak Cheikh Sidi Ahmad Tidiane. Uh-huh. yonent bi bi muy génn addina dafa fekk Seydina Aboubacar ayee ji ci soxnaam bu nekkoon ca gannaaw Medina. fa la ko xibaar ba fekk. Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi denc nañ ko ba mu am ñetti fan ñu door a yóbbul xibaar bi. Cheikh Mouhamadou Al kon fekk ko foon mu nga woon ca soxna am ca séetam ñu bari nag biñ dencee Cheikh Seyd Ahmad Tidiane ñu ne kon moom lam doon wax ne mooy xutbul maktum xamul sax ki koy doon mu ngi désigné woon ne Cheikh Mohamad al Ghali mooy xalifaam te fekk ko fi sax désigné ne moo koy julle te fekk ko fi ndekete ci biir loolu Cheikh mu ngi leen di woon boppam Seydina Cheikh du kenn kenn du moom Euh, ci biir loolu sey dina Cheikh di leen wan boppam. Mhm. bi mu amee ñetti fan ci bàmmeel fekk dafa waxoon ne bu ma génnee àddina sama njaboot gi nañ ñibbi ca saxaraaba nañ delluwaat ay numaat bi daan na wax sax bu leen kenn may soxna. bee gaa yi ne ko waaw yow xanaa danga bañ ñu jaxasoog sa njaboot mu ne déedéet Fass dëkku capital la mhm. ay numaat di dëkku kaw la. Mhm. te charia nanguwul nga takkoo takkee ci kaw gi te nanguwul nga takkee ci capital bi yóbbu ca kaw ga. lu bari nag léegi ñu koy def. Ah, moo taxit problème yi di bari ci sëy gis nga se Seydina Cheikh ni mu teelee am civilisation. Mhm. mu ne leen charia nanguwul nga takkee ci capital yóbbu ci kaw waaye nangu na nga tappi takkee ca kaw ga indi ci capital bi mu ne comme Fass nag Fass booba du capital ba léegi sax capital. Mhm. mu ne leen comme Fass euh, capital la. Mhm. ay nomades yi. dëkku kaw la. nanguwuma ngeen may seen njoboot sama njoboot gi ngeen may leen soxna ñu yóbbu leen ca kaw ga. charia bëgg ko. ci loolu ñuy xëccante di xëccante bi xale yi ne dañuy ñibbi kon dañuy yóbbaale seen baay ndekete yoot nañ ci guddi gi muy Seydina Cheikh Mouhamadul Kabir ak Cheikh Seydi Mouhamadul Habib ñoom ñaari doomam yooyu ñoo fi desoon ci góor ñi Seydina ñu yoot ci guddi gi nag dem sulli góor gi bi ñuy génn ak moom nag sulli nañ ko bay génn dëkk bi Seydina Cheikh ci kiraama yàlla Seydina Cheikh am muqaddam ak wali yum feeñu ci guddi gi ne leen gaaw leen lu ngeen gaaw ma xem ndax xale yaa ngi may yóbbu mm-hmm. ñooñu tamit fëggante kenn ku nekk yee sa moroom ñu topp tànku xale yi mm-hmm. biñ leen toppee bi fekk ñu génn dëkk ba mm-hmm. ñuy xëccook ñoom nag du ngeen dem dinañ dem du ngeen dem di ngeen dem du ngeen dem ndekete foofa ñu taxaw di xëccoo mooy yoon wi Cheikh Mohammed al yi di jaar pour ñibbisi si Faas mu ñëw rek yem ci ne lu xew ñu nettali ko mu ne acca leen ñu dellu faas ñu dellu faas ñëw mu waxta ñaan xale yi waxtaan ak ñoom muy Cheikh Mohamed al Kabir ak Mohamed al Habib mu ñaan leen ñu may ko fañ denc tey Cheikh Sidi Ahmad al Tidiane Cheikh Mohamed al Ghali moo ko désigné tegaat ko ndax ci charia kuñ sulli balaa ñu lay suulaat dañ lay jullee kon la Seydina Cheikh waxoon am na Cheikh Mohamed al Ghali teg ko ne sàppe leen ñu sàppe mu ne allahu akbar uhuh. jullee góor gi denc mooy fañ denc tey Cheikh Sidi Ahmad Tidiane kon la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane waxoon am na. kon Seydina Cheikh li ma ci jublu rek mooy ba muy génne àddina. dafa noonu Cheikh Mouhamadoul Ghali mooy xalifaam. kon te ñaari doomam yaa ngi fi woon. muy Cheikh Mouhamadoul Kabir ak Mouhamadoul Habib. kon Seydi Hadji Malick teel na xam ne ndikete sa doom doon la yombut. yombut mu di ci reyante nag moom pour am ko ndax nit boo bëggee boo bëggee. lu kawe rek yàlla dimbali la ci mooy am lu kenn amut. Mhm. Seydina Cheikh pour mu nekk loolu beneen waxtaan la beneen dimension la pour mu nekk euh, pour mu toog ci maqaam bii tey. Mhm. moo ko ñaan maamam maamam ñaan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Mhm. Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi ci xutbul euh, ci ci mafatihul kunuz yi rek la bokkoon. ndax ndax joxe li ci nekkoon la gis. ndekete bi mu demee nag ba bokk ci mafatihul konoos yi mu yëg ne xutbu yi aktaab yi ñoo chef mafatihul konosi mu ne maama man bëgguma ku ma chef dama bëgg a bokk ci xutbu yi di chef comme ñëpp maamam ne ko du ko kenn du ko cumuler poste boo xam ne la kenn nanguwul cumuler da ngay nekk rek xutbu wala nga nekk ci mafatihul konoos mu ne ko yow loo ñaan sa borom mu defal la ko ñaan ko man ma njëkk koo nekk mujj koo nekk yonent bi ñaan ko yàlla yàlla may ko ko Cheikh Seydi Ahmad Tidiane nekk xut bu bokk ci Mafatihul Kunuz yi di chaise ñaar yëpp ci moom la njëkk a amee ci moom la mujj amee keneen amaatu ko te loolu moo ko ñaan Seydi Aji Malik ci la sukkandiku ñaan nag bind leetaram gannaaw bam mu ñaanee ba yàlla nangul ko mu xam ne yàlla nangul na ko moom Seydi El Hadj Malik mm-hmm. waaye ci modestie ak fa falaa yamanu makrallahi illa al xawmul xaasiroon mm-hmm. kenn du wóolu pexem yàlla ca la bindee lettre nag Cheikh Sukayrij lettre ba abiyat ya bokk na ca min baadi abi bakrin suma mansour wa abdul aziz yi summa habibi ah tënk leen ca ci ñaan nga ci ñaan gis nga wax nañ ne ñim ñim def suma yëpp xamoon nañ ne duñ fi yàgg xilaafatul haaruniya la mm-hmm. mooy alaaji mansour mii ñuy waxtaanee mm-hmm. sum min baadi abi bakrin summa mansour mm-hmm. wa abdul aziz yi habibi ah parce que Serigne Babacar la wax. min min min min min baadi. Abi Bakrin mm. wa Abdul Aziz. waaw oh, gis nga ko. Mm-hmm. ñim joxoñ ñëpp ne nañ fi dàkk sëñ Babacar ñaata at. Ah, waaw 37 ans ba 57 ans. Ah, mm-hmm. alaaji Abib xilaafatul Haaruniya. xaaji Mansour mii ñuy waxtaanee nag. nekk na xalifa baayam nekk xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane te sëñ Babacar si di dund. loolu la ñuy wax xilaafatul haruniya ba bi muy génn àddina moom sëñ Babacar si sëñ Abdou nee na ajjuma bi eh, talaata bi sëñ Babacar si demee Barzak. mu ne sëñ Mansour daf ko woolu alaaji Mansour mi ñuy waxtaane ne ko Abdou raj raj lee ko coow li bu ci bokk. takkal sa fit wi te dalal gan ñi yaa fi toog man damay dem Babacar du ma fi bàyyi ajjuma laay dem mm-hmm. nanga takk sa fit wi te dëgëral sa fit wi accueillir gan yi dékku ko ndax yow la ko yàlla yan nee dënku dënk ko lam koy dënk kon kooku xam na li xew mm-hmm. mu ne mel na kon mel na kon juróomi fan lañuy ñuy rawante daanaka juróomi fan la rawante kon moom xam na bu baax li xew ca la waxee waxam bi sëñ Abdou ne ca la ne dañ foog ne man dama fi toog pour ëkku ëkku mooy jonkonu mhm. jonkonu sëñ Babacar si pour mu dem ma nekk xalifa mu ne soxlawuma ko sëriñ Babacar du du du mag ci man bàyyi ci man la ndem nit ñi yaakaar nañ ko rek nag mhm. buy dem du ma fi bàyyi damay demaale faf mhm. ñëpp ñëpp xam ne Mansour soxlawut loolu bu doon keneen du ko ci fekk sëñ Abdou mooy nettali Cheikh El Hadj Abdoul nee na ajjuma ñu toog ci zawiya bi di xadara xadaratul juma nee na bi bi allah allah bi di waaje jeex ci lañ ko lii may wax si sëñ doo ko nettali ci gémmiñu lañ ko fëgg ci mbaggam ka ko fëgg tudd na turam waaye dama ko fàtte waxtaan wi ma yóbbu nee na mu fëgg ko ci mbaggam mu mu xool ko mu déey ko ne ko alaaji Mansour dem na sëñ Abdu ne wasifa xadara bi daanuma jóg dem ci kër ga fekk dem na ñu defar ko indi ko denc ko foofu ñu denc baayam tey muy Seydi xaj Malik euh, léegi nag euh, liñ ci bëgg doole xam naa waxtaan baa ngi jeex mm-hmm. tabaarakallaahu waxtaan wi mooy jeex waaye ki ñuy waxtaane moom mbiram du jeex muy El Hadj Mansour mm-hmm. euh, bàyyi na fi ak njaboot mm-hmm. ñi ngi ci nuyu ci occasion bi Euh, tabaarakallaahu muy euh, ki nga xamante mooy Serigne Babacar Sy Mansour di Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam si moo toog toogaayam ba mm-hmm. euh, wuutu baayam bi tabaarakallaahu mm-hmm. ñëpp xam ko ci xam-xamam mm-hmm. ak itam dëggoom yaakaar naa bari na loo ñu nette ci biir waxtaan yi nii Alaaji Mansour nekkee woon koo nga xamante ni ci tarixa bi ku taxaw woon temm la lépp lu nar a gaar tarixa bi rek mu taxaw ci yaakaar naa loolu itam jeexital la ci doomam ji di sëriñ Babacar Sy Mansour mhm. bàyyi na fi ak njabootam Alaaji Mansour mhm. njabootam googu la tey mhm. seen seen seen desitu Alaaji Mansour woowu nan lañ ko mën a xoole ci suñ jamono ji waaw Xaaji Malick loolu luñ sawar a wax la ndax kim fi bàyyi bàyyi na fi ñaari doom yiy dund fi may wax ak yow nii muy sëriñ Babacar Sy Mansour bii nga xam ne yàlla yàlla guddal fanam fii may wax ak yow nii mu nga ca Italie di def tournée mm-hmm. bi muy def at bu jot ànd koog baytam Tamsir Sakho mm-hmm. euh, doon na ko ci baayam rek nee naa la baayam inspecteur u tarixa bi la woon kon doomu inspecteur du toog mm-hmm. warul mën a toog loolu la day inspecteur rek loolu la doon ci baayam mooy boo doon wax daal da ngay naan sëñ mbay sëñ mbay Mansour mooy xaaji Mansour ak soxna Fat si bii di soxnaay xalifa bii xalifatu général de Tijane Cheikh Alhaaji Mansour Mhm. alxalifa ayyadahu llahu wa nasara mhm. yàlla bàyyil ñu ko fi guddal fanam ba ca kanam mhm. soxnaam soxna faat si Seydi Hadji Mansour a ko jur ni mu juree sëñ Babacar si Mansour amoon na yeneen doom waaye dañ génn àddina waaye ñaar ñii fi may waxee yow yal na leen fi yàlla dolli bàyyi ñaar ñii ñoo fi des ak i sëtam nag waaye taxawaay bi seen ma bàyyi amoon ñii muy maam ci ñoom taxawaay bañ amoon ku mel ni sëriñ Habib di doom ci sëriñ Bay Mansour mm-hmm. ak sëñ Maodo mm-hmm. ñu tuddee ko Cheikh Alhaaji malik si Maodo bu Cheikh Alhaaji Abdou Aziz mm-hmm. mooy taawu sëriñ Bay Mansour fa tabaarakallaahu ak ñii ma la xamee laa xamee njobootam ndax samay wëllëre li dalee ko ci Xaaji malik moomu ba ci sëñ Habib fa tabaarakallaahu Carno sëydu Nuuru Mansour am na Mansour ku mu tuddee maamam ku mu baayam kon am na Mansour ak maam Duudu maam duudu ca fa tabaarakallaahu eh, itali fi may wax ak yow nii mu nga ca Espagne kon ah ak Sidi Ahmed bu ndaw mu nga ca Tiwaawan ak jigéen ñi fa tabaarakallaahu njaboot gi fa yàlla moom may na ko njaboot ndax ay sët ci njaboot lañ bokk te sët yi yaatu nañ fa tabaarakallaahu bu dee ca jigéen ña soxna umu xayri moom sama séddoo la bu sëñ Babacar Si Mansour ak kaltoom ñoom ñëpp ci njaboot gi lañ bokk ba ci sëriñ Habib bu sëñ Mansour. xalifa bi sëriñ Habib si. bu sëñ Mansour xalifa général de Tijane. ah ci njaboot gi la bokk. ndax yaayam xaaji Mansour a ko jur. waaw fa tabaarakallaahu yaayam xaaji Mansour a ko jur yaayam mooy soxna Faat si. soxna Faat si xaaji Mansour a ko jur. kon xaaji Mansour daal eh, li ma lay mën a wax waaye mooy ku yàlla may la. may goo xam ne baawaan na ba daj fépp rek ñëpp ñi ko xamul it ku yër mbindam yi li nga wax léegi di nga xam ne kii te cinquante sept ans la dund mm-hmm. lii mu fi def yëpp ci cinquante sept ans la dund juróom fukki at ak juróom ñaar moo tax bu ma déggee nit ñi naan euh, ku am juróom fukki at guddoo fan luñ bëgg téeméeri at fan wu gàtt te nga def fi li yàlla bëgg moo gën fan wu gudd woo xam ne defoo fi dara waaw <laughs> wala déet yoon ci yàlla Isa 33 ans la fi def mm-hmm. maam jaara Buso mii 33 ans la fi def. Firawna ak lim fi yàgg yàgg. ñu ngi koy rëbb. mu ngoog Firawna juróom-benni téeméeri at dund na ko ak yu teg ak lu teg. Mm-hmm. parce que juróom-benni téeméeri at yi la yonent bi wax ne dund na ko. Mm-hmm. te bopp méttiwu ko. Mm-hmm. juróom-benni téeméeri at yi teg na mooy 600 ans. te fu yàlla rëbbee rek laanatullahi ala na la. na moom la yàlla gën a rëbb ci kaw suuf te moo fi gën a yàgg. ci ñi bon boog yàgg fi amul njëriñ def fi lu nit ñuy wax ci lu baax moo am njëriñ hmm. fa tabaarakallaahu xaaji Mansour nag def na fi am na fi ñeen fukki euh, juróom fukki at ak juróom ñaar ci biir wax ji ñu ngi dégg sax euh, ngay wax di wax xaaji euh, Mansour hmm. te nga ñu wax ni yonent bi lañ ko tudde Mouhamed Dinil Mansour xaaji hmm. Mansour gi xam nga ni ñu miin ñun ci suñu réew yi rawatina Sénégal boo ajee Màkka sax lañ lay wax alaaji ba léegi dem na ci ba ku aji màkka boo ñëwee buñ la ko waxul sax xëy na mm-hmm. nga gis ni wàccee sa daraja la mm-hmm. te mën naa am sax ñu ñàkk la koo wax ndax mm-hmm. li Serigne Cheikh di wax naan eh, alaaji Mouhamed kenn du yonent bi du ko dégg te yaakaar naa bu ñu ko doon wax moom moo ko ne yelloo mais Hadji Mansour alaaji gi dafa kenn mënul wax sax lu dul El Hadji Mansour daraja du ko yàlla defal xëy na kon dem dafa dem màkka moo tax ñu koy wax comme ni ñuy wax Seydil Hadj Malick ndax Seydil Hadj Malick dafa moom wax ci yonent bi jëf ci yonent bi dem fekk yonent loolu moo am ci Hadji Mansour dimbale nga ma sax Hadj dafa aji màkka yoon wu neex nag ba muy jógee màkka mu jënd séritie yu bari ne day jaar faas mm-hmm. Maroc mu jaar faas jiyaare fa génn góor koo xam ne muqaddam la ci tariqa bi mm-hmm. góor gi ne mm-hmm. moo waxal boppam mu ne bi xaaji Mansour yegsee alaaji góor gi alaaji mbay benn tey moo nettali lii may wax mu ne bi alaaji mook alaaji Mansour ñoo àndoon ca yoon wa mu ne bi alaaji Mansour ñëwee sërite yim jëlee woon màkk pour jox ko góor googu muqaddam boobu ca faas mm-hmm. nee na bi ñu yegsee muqaddam bi dafa jooy jooy yu métti ne ko ñetti fan a ngi nii xetu Seydi Hadji Malick di ma xeeñ mm-hmm. kon munoo woon a ñàkk a ñëw fii mu ne ko toog naa ñetti fan xetu Seydi Hadji Malick di ma xeeñ mm-hmm. Seydi Hadji Mansour kontaan te booba màkk la jógee jaar faas kontaan yëkkati lam indi woon ci sëriñ ca jox góor gi góor gi jël ko ne ko jël naa ko waaye doomu Seydi Hadji Malick yàlla xamal na ma ne kum jox waroo ko jël ndax seeni martaba mu ne góor ga delloo ko ko yëkkati waat luy àddinay teraanga jox ko alaaji Mansour mm-hmm. mu ne alaaji Mansour ñaan góor ga nag ne ko may ma juróomi téeméer yi xoolal ci jamono booba ca jamono booba mm-hmm. nee na alaaji Mansour génnee juróomi téeméer deux mille cinq cent mm-hmm. ne ko lii maa la ko jox hadiya dimbale ma nga jël ko mu ne góor gi door a nangoo jël deux mille cinq cent yooyu muy juróomi téeméer ci jamono booba ci jamono booba. Mm-hmm. loolu yoonu makka moo ko waral dem na màkka aji jaar na fa ziyaara Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi door a ñibbi si waat Sénégal. barakallah euh, Chérif Ibrahima waxtaan baa ngi jeex te yaakaar naa ne ñuy déglu. Mm-hmm. Uh, ak ñi ñuy topp ñëpp yaakaar naa ne dinañ kontaan ci ni ngay waxtaane ndax ki ngay wax uh, yaakaar naa ne dangay ngay tibb ca source ba di ñu ko jox mm-hmm. te loolu mooy li am solo wax ju nekk rek dafay tungoom seede mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga tàggoo ci dund kooku ñuy waxtaan di Alaaji Mansour mm-hmm. waaw ñu ngi ci jéggalu ñëpp buñ ci waxee lu ëpp te xam naa sax lu ëpp ndax nitu yàlla loo wax ci moom am na lu des te moom ku nëbboon boppam la malgré li feeñ ku nëbboon boppam la ndax daf daan wax ne rus di feeñal ci sama kanami mag ñi muy sëñ Babacar si kon li feeñ yëpp dafa mëntoon a ñàkk mm-hmm. waaye lum nëbboon la kon maa ngi ci jéggalu ñëpp bu fekkee wax nañ luy choqué nit mm-hmm. wala luy déranger nit in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barakallahu jërëjëf kon uh, ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy topp ci waxtaan yi ñuy waxtaan ci dund ak jaar-jaaru El Hadji Mansour si eh, radiyallahu anhu di doomi Cheikh Sidi El Hadji Malick si kon xam na ñi ngi ndokkeelal Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane ñu bàyyi rek sayid yow itam nga yëkkati eh, ñu daaneele ci ay bayit rek yu xam si dafay aju ci kër gi moo xam Seydi El Hadji Malick wala El Hadji Mansour. Hmm. bi ñu doon waxtaanee. ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax di ndokkeel ñi ñuy topp ñëpp ci biir Sénégal ak ci bitif Sénégal euh, di jaajëfal euh, suñu mbokk mi nga xamante ni mi ngi ñu euh, dëpp caméra bi moom itam ngir rek bëgg lu yaatal waxtaan wi ba ñëpp jot ci parce que dafay am njëriñ muy Omar Diop kon Omar ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel auditeurs yëpp ak ñi ñuy seetaan ci biir àdduna bi fa tabarakallah ki leen ko doon présenté di seen mbokk El Hadj Malick Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu من وب من لم ألاقي وبرست يقل الأيام يولو سيخ سلاي ما نقل قناج قبل عنين عجول ورقب إلى وادي الأقيق عيول سيخ سلاي ما نقل يلا محمد وقلت لعيني انتقلفت أسبل بأمطار سوقك الأقيقي تسيل أنو كمانات أمامة أيكة يؤيجها نول بكاي الديل شيخ سلاي مالك ne ودون يقوب على فق يوسف وترأمني وقنواي سكول واخر شيخ سلاي مالك ne yonent Yàlla Muhammad فواك بدا من أب من لم ألاقي وبر اشتياق للأيام يول لبر الأواقر فمن رعام نيله يكل ولا يسى إليه وسولا فالعار على تسكى من البدي والكل ينتل محمد tuqaddu wala tudwa jawaaya atiiru sa turandoo wa xarqin bi samlaalil awa qad qatatoo bi aadama yaya almadaaw fuulu fawro ne la nii ñu màggal yoon ci yàlla Muhammad xoola ma sëriñ Babacar Sy mi borom du ko jàngal du ko wengal fam ko teg daaw la ko teg ren olof Njaay daa lii bu du man kanamam du man ginnaawam wala xoola ajab doo si naan ko billaay sunu sàmba mi billaay mën a kanama mën a ginnaawam waa xola sëriñ Babacar Si na la yoon ci Yàlla Muhammad ki muy abdul madina xat bakat bi zahiri laakin li baatina suru li xaadimi sëriñ Babacar Si na almun wujudun wa tuxaa wa siyaadatul asu dari wa ikmatum bi makaarimi yoon ci Yàlla Muhammad kon nag ma o duyuufu ida ataw ziyaarata روض الرسول وعجب بيت الحاكمين